sama appel bi pour ñu waxtaan si yu bëree bari par rapport ak euh, léegi yi ma Sénégal joxoon te ñu nangu ko ci man te ma delloo ko ñu waxtaan si ak jàmm salaam yéen ñu fi teew maa ngi gërëm di sant di nuyu aussi sénégalais yi ñuy déglu ñu nekk fii ci réew mi ak ñu nekk bitim réew. parce que ñun ñëpp ñoo bokk suñu Sénégal ah mbir mi nag. ça me ronge au fond moi-même te li ma leen di wax ni wax naa ko président bi parce que man du ma waxantu man te encore une fois je parle sans embâche je suis un homme engagé bon je dis ce que je pense je dis ce que je pense et je fais ce que je dis wax naa ko président bi mu dégg ko ma dégg ko. il n'y a pas plus tard il n'y a pas très longtemps il me l'a ressorti ce dossier dafa metti parce que ma gars yi dañ ci dugg ma gars yi ñooy sa xarit ma gars yi ñooy sama xarit alhamdulilah rabbil alamin yow mi président sax yàlla nga nekk sama xarit yàlla nga nekk sama xarit parce que loolu mooy àddina donc 18 mois 16 mois j'ai bossé pour le Sénégal avec les, le salaire que je vous ai dit, 18 millions, ça veut dire 1 million et quelques. Donc c'est un contrat. Ça, on l'a dit contrat avec le bureau ministre. Bon, à la fin. Donc ils étaient dans de, séparation. Du mois de février au mois de juillet. Quel proposé au modèle Quel n'a Et vous avez vu la presse. Vous avez, les griefs comment sortir, toutes les avanies, les, propos vexatoires. moi j'ai de l'opprobre, l'opprobre sur, sur, su pas mal de choses, sur mon management surtout. noppi rek di yàlla maay sant yàlla mu yàlla mi nga xam ne moom may doole boo xam ne may muñ dellu si moom hmm? Dieu est notre seul garant on man de dama jullit laa de te yéen ñëpp jullit ngeen te du fi nekk di wax yenn yi de wante xas bu na loolu mooy je place toute ma confiance en Dieu c'est mon ma noppi rek sant yàlla maa ngi sant yàlla bu fi yemoon sax neex ma wax naa ko dinaa ko li ma toog fii Sénégal nekk entraîneur national mu ne waaw mu ne ko président yow yaay président xam nga yow bi ngay bi ngay bi ngay nekk président fii yow yaay candidat unique mu ne waaw ma ne ko xam nga loolu ko def mu ne waaw ma ne ko yàlla la du yow de man man man mënuñu dara ñun yàlla rek moo mën ne ko man mi nga taxaw sa kanam nii ma nekk entraîneur national war ko def ko yàlla tuddee ne war naa ko nekk pendant des années des années des années mënoo ci dara danga ci mënul dara su ko yàlla tuddee nag avec les circonstances que ne eh fi lay yem alhamdulilah rabil alamin ala kulli haal pendant cinq mois pratiquement on va parler jusqu'à au mois de mai je l'ai vu, et avait une volonté de, reconstruire, de, retravailler ensemble. on a donc essuyé tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait. Je pas donné, parce que des, des, des, je suis pas parfait. C'est un coach difficile, il a du caractère, personnalité, il est dur. Non, je pas dur, je suis exigeant. Je suis exigeant. Et ce que je demande, je, je suis exigeant d'abord moi-même, je suis exigeant vis-à-vis de moi-même. Exigence boobu xam naa peut-être euh, neexu leen mais c'est mon caractère c'est mon ma personnalité jàng naa fu nekk diplôme yi ma am ci pour entraîneur j'étais le premier africain le premier sénégalais africain noir en France à avoir un contrat professionnel en France mus mu ci wax mu ci wax diplôme bi mu ko am j'étais major de la le major de la ma promotion en France yàgg naa liggéey France ñëpp xam ne que tubaab yi lu la jox lu jox loo xam ne mënoo ko de lu la reconnaître tëkkee non non à travers ça après <laughs> parallèlement à ça j'ai d'autres diplômes sur le plan communication au niveau management je suis un technicien en PNL j'ai un niveau niveau euh, le plan euh, la programmation neurolinguistique je le dis pas je tout de côté lu ma ñëw Sénégal nag ah di gis nga xam ne mais li ñuy wax loo xam ne nekkul ci man lu ma ko d'accord du ma ko d'accord mënu ma dernier moo tax mu bëggoon rétablir ay faits faits yi yi ma wax nii c'est l'historique il faut ñu duggee si nga xam ne mooy li ma bëgg a wax tey c'est-à-dire établir les faits précédents à, mon, reconduction Je ne pas dire limogeage, parce que c'est il faut faire attention sur le plan des mots. La sémantique, c'est important. Le sens des mots, c'est important. Mon accord, ok. Moi, envoyé passé, le jour de la, du tirage de l'afro-basket féminin. Moi, envoyé mail. Le mail, il est là, un contrat. lundi. Je le mets à disposition de la presse. Je ne cache rien. Je ne cache rien. Et ce contrat, moi, envoyé mon corps. une durée de euh, deux ans et trois mois à compter de sa signature. Il prendra fin après la faux basket. Et on parle de rémunération, on parle d'obligation et tout ça. Donc, le contrat, oui. ma liir ko mais pendant 40 ans ñun professionnel yi ah suñu contrat de ay avocat ñoo koy bind jàng naa na comme ñëpp mais nag du ma juriste le diable est dans le détail c'est les contrats da joxe contrat bi ki nga xam ne loolu mooy liggéey am naa droit quand même bu ma joxee ma liir ko ne xaaral ma consulter jël benn avis chez un avocat consultation juridique loolu am naa man ne kon nag président jot naa se contrat liir naa ko mais mais ma ma wut avis juridique après je vous reviens loolu lundi la de lundi soir lundi soir bi jour jour kii bi déglu leen bu baax de li may wax déglu leen bu baax li may wax munoo ma d'accord ne ko kenn laa la mën a woo nag nag ma woo entre 9h et midi ma ne ko ah naa xool su fekkee ne gis sama sama avocat bi gis naa ko naa la woo malheureusement je l'ai vu à 16h ma woo ko ne ko 16h laa gis sama avocat bi suñu paree rek naa la woo contrat bi mu ko gisee gis ñu may wax naan euh, l'entraîneur responsable en collaboration avec le directeur technique national du programme de préparation de l'équipe nationale féminine de basketball su demee kii man entraîneur góor yi la wala entraîneur jigéen ñi ma ne waaw lii lan la ma ma continuer di continuer di lire ñu ne l'entraîneur devra communiquer la liste de ses joueurs sélectionnés il y a des problèmes contrat bi xanaa contrat Cheikh Sarr la kon contrat Cheikh Sarr bi day moom ah mais lire di lire gis s'abstiendra de faire des déclarations publiques dans la presse qui pourraient ternir l'image de l'État du Sénégal de la fédération et de toute autre entité en charge de l'organisation du basketball au Sénégal mais je suis un produit du Sénégal je suis un fils du Sénégal je suis un fils du Sénégal li ma leen wax yëpp ci affaire yu sama sama deret deretu sénégalais la ministre bi danaa ko ba ma toogee moom devant son son son directeur de cabinet ma ne ko monsieur le ministre bu ma traité mbokk de français man ab lébu la ma baa bëggee ma làkkalee lébu baa boobu baa bëggee ma làkkalee lébu respecter sama appartenance ñu ànd c'est très très bien passé au demeurant c'est très très bien passé mën na ko yow yaay kilifa sport bi wante man doo sama patron xam nga ki sama patron président fédération mun na ma d'accord la mu ne ko wax yi fi amoon yëpp xam nga suma bëggoon gis la fan Sénégal laa kon ñëpp naa la gis bu yàgg mais du ma tëb sama patron ñëw di la seet dama bàyyi noonu rek te yàlla def na teel a taxaw toog waxtaan dañu dañ nekk dans vraiment c'est très bien passé très cordial ñu jox engagement mutuel qu'on va travailler ensemble il l'a même dit dans la presse je l'ai même dit ma wax leen nag loo xam ne ngeen def ko ngeen déglu ko bu baax parce que après parce que quand j'ai lu le journal d'aujourd'hui euh, l'interview du président Babacar Ndiaye parce que j'ai fait une conférence pour faire des éclaircissements j'ai rigolé hein, parce qu'il répond pas aux questions léeg-léeg je vous le le de le lire du ma nekk di ko commenter question yu bëri posé nañu ko est-ce que entraîneur war a def supervision il répond pas est-ce que Abdourahmane Ndiaye dérangé la il répond pas est-ce que lan moo tax euh, euh, ab euh, négociation yu aboutirul il répond pas il répond pas nga répondre est-ce que est-ce que c'est un un un coup monté il répond pas neel waaw wala waaw parce que lii non parce que lii waxal lu leer waxal lu leer je laisse le soin aux Sénégalais d'apprécier ñu nekk ci ministre bi ma ne ko yow yaay patron bi man Abdourahmane Ndiaye soo bëggee mu liggéey Sénégal pour un franc symbolique je le fais wax ko rek te na ko bind mu jeex naa liggéey Sénégal un franc symbolique te kenn ko xam donc ils m'ont ce contrat-là moom ko sama il y avait des rémunérations pour la coupe du monde un contrat de deux ans avec euh, pour la coupe du monde des rémunérations qui étaient bien précises je peux vous, le dire il y a il y avait 15 millions payables euh, 10 millions au moment du paiement de la prime et tout ça et millions à faire, à faire la compétition OK Ça faisait millions. Et pour les autres euh, aspects du contrat, sur les deux ans de contrat, la rémunération se fera sous forme de putiste. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des compétitions, on s'assoit à nouveau pour waxtaanaat si la mën a jox ñaata ñaata ñaata dërëm ñaata dërëm ci ñu waxtaan man tàmmuma non franchement tàmmuma loolu loolu du contrat. ma woo ko ma ne ko président mu ne waaw ma gis naa sama sama conseil juridique on a un certain nombre d' observations à faire ak reformulation boo xam ne daal bu naa ngi def ko dans l domaine de premier bi mooy esprit wu bi non premier bi mooy euh, dama bëggoon ñu ajouter si contrat bi un programme de supervision parce que mon métier ne se limite pas simplement à la compétition il faut ma dem seeti joueurs yi bu mu waree d'ici afro basket 2021 il faut ma gis joueurs yi dañuy ñuy nekk ak ah, ñu nekk Sénégal yéen ñu gis ngeen quand il y a des matchs au Sénégal je dama ñëw toog dama ñëw seetaan match yi jëloon naa fi tous les meilleurs joueurs au Sénégal di leen entraîner ñun ñii bu naa leen gis tout le temps pour dimbali leen entraîner leen de fois par semaine ñu ne ma non no non dafa cher mënuñu leen jox toujours 5000 francs par di passe ñu ñëpp mënuñu nañ bàyyi loolu am équipe nationale locale yow doo ko doo ko toppatoo si noonu la demee woon de mais j'ai pris deux joueurs quand même Moustapha Diop ak Franck dans ma ne ko bon voilà moi je voudrais qu'on ajoute sur le contrat un programme de supervision pour, pour que après que je puisse avoir les moyens d'exercer mon métier parce que loolu c'est important loolu si la bokk may gis jour yi ñu xool lu ñu si lu ñu nekk ak lu ñuy def ñu yokk ci contrat bi dama bëggoon aussi ñu clause bu mu leen wax sànq parce que clause boobu ça a heurté ma conscience pour man c'est c'est pas une clause républicaine clause bi mooy ma rappelé leen ko mooy l'entraîneur s'abstiendra de faire des déclarations publiques dans la presse qui pourraient ternir l'image de l'État du Sénégal ba ma ko liiree sama dama deret yëpp dafa kii ba ma ko liiree ma ne lii mënu ma ko signé lii mënu ma ko signé bu doon par mois mu bind lii ci contrat bi du ma ko signé xaalis du du du moo am moo ëpp importance mooy li mu leen wax au départ rek moo ëpp importance ce sentiment d'être uni d'être un ñun ñëpp avec nos diversités moo ëpp importance lépp que ce soit cohérent et c'est dans le sens de l'unité boobu loolu moo importance ma ne ko loolu laa bëgg reformuler ko avec d'autres termes a waxaa sama conseil juridique bi ngeen reformuler ko je sais pas devoir de réserve j'en sais rien am am na ñu koy waxee daal am na ñu koy waxee tubaab dafa xaw a kii am na am na ñu ko mën a waxee. donc nag loolu mooy sama sama sama observation yi esprit contrat bi ak esprit pigiste bi ni ngeen ko defee diggan naa leen bu baax diggan fay entraîneur basket tous les mois alors que le mois lay liggéey trois mois euh, c'est pas vrai. suñu liggéey ku ko xam-xam ne ñu liggéey que deux mois c'est le jour du match football bi rek moo am moo am exception bi moom rek ñu mënuñ mënuñ mën fay par mois man ñaanu ma de Aliou Cissé alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin si lu muy am dañ koy ñaanal ñun ñëpp ñu ñëpp daan toog suñu suñu suñu télévision sol suñu yëre suñuy mayo ñu ñëpp ko daan sol de si match football si CAN bi Aliou Cissé moom xam na xam naa suma relation moom moom xam ne am na xam ne du ko ko sax du question damay ñaan ak yooyu ma ko président mu ne waaw ma ne ko esprit contrat bi xoolal loo mën def que le système de rémunération yooyu ñu bañ a toog tout le temps di wax di xëccoo ngaa yow di werante personne n'est éternel yow sa bopp sax bu la neexee nga ne bàyyi naa présidence bi kii di ñëw bu ko neexee mun na man sa contrat bi man sama yow ñaar dërëm laa lay jox wala moo ñu ko neex mu ne dix mille francs laa jox bu neexee mu ne cent francs lay jox na mais parce que mais non il faut que écoute-moi hein, parce que c'est important mun na ma ñaata nga bëgg ma jox la par mois ma ne ko jamais je demande de l'argent ba booy wax a man di ma fixé say say say xaalis man dafa la lu ma lay tontu man dama naan xaalis bi ngeen bind la neex man projet moom ma intéressé projet moom ma intéressé projet développement basket moom ma intéressé ndaka laa bëgg a sama sama sa sama sama expertise parce que Sénégal moom a ñor loolu moo ma intéressé le reste ça m'intéresse pas bu dee sur le leer xaaral ma faciliter la tâche bi nee naa ministre bi dans son bureau soo bëggee man liggéeyal la un franc symbolique ma ne ko bind loolu si contrat bi ma xam ne un franc symbolique la loolu ku la ko wax loolu ku la ko wax il est pas sincère ne ko nag léegi nag comme ñu ne parce que parce que bu ma gisee journal bi ñu naan. il y a de l'urgence, il y a des trucs. Mais ça fait cinq mois que j'attends, moi, qu'on m'appelle. Quand on m'appelle et que madame Diouli dit, comme ñëpp aj bésu àjjuma te daañu gaaw sax madame Diouli ji parce que man lu mu fi toog ba deux heures de damay dem Diouli ji comme ñëpp. mu ne woo na ma seen seen woo na ma j'ai appelé l'entraîneur j'arrive pas à le joindre envoyé naa ko SMS tontu ma ça fait cinq mois que j'attends mooy woo boobu dikk journal bi. lundi la ma jox contrat bi sama avocat woo ko pour ñu ñu xool nu ñuy ñuy changé terme yi ma yi ma wax léegi ñaari ñetti points yi ma wax léegi ma woo ko moom ne man comme actuellement esprit contrat bi mu ngi nii man loolu ma contesté votre confrère Wii Sport m'a appelé le soir euh, Nafi Amar on a fait euh, interview même le soir ma ne ko non engagement bi mën a joxe mooy man je suis là pour ma woo ko moom ne ko président man affaire contrat comme ni ma ko waxee woon rek xoolal kii bi ngeen reformuler yenn affaire yi yenn yenn points yi comme ça au moins ñu continuer wante comme comme ni ngeen ma waxoon affaire urgence urgence bi yegg nañ fi parce que ça un mois qu'il me demande la liste ça fait un mois qu'on me demande la liste des sélectionnés moom sax mosuma ko laaj de parce que li mu wax ci journal bi ne moom ma ko laaj moom mosuma ko laaj Maguette Diop le DTN qui m'a demandé de faire la liste ma ne Maguette mu ne waaw a ne il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre et man su ma la joxee liste tey say sonné yow bu la neexee nga ne ma yaay kan <laughs> ma yow may kan man kenn nommé ma ak ku ma nommé sur quelle base lay laay taxaw di joxe ay list depuis un mois mun ma ko loolu defal leen ma contrat ma signé ma signé ma joxe sama liste maa ngi liggéey. parallèlement jour yi maa doon woo jusqu'à jusqu'à lundi soir woo wo leen ne leen préparez-vous préparez vos trolleys sax je m'en fous mais ça va être dans l'urgence mais gaaw leen ngeen ñëw lundi j'ai appelé des joueurs Amady Ndiaye tout ça ñu nekk tou unis ñoom Lamine Samb mooy tout ça j'ai appelé ñoom xam nañ ko loolu mën nañ ko wax yooyu mu ko wax ma ne ko comme léegi da ngeen nekk dans l'urgence affaire contrat daal ñu ngi ko bañ a xool man damay liggéey bi dinaa woo sama assistant yi mardi matin mardi matin je les ai convoqués à 10 heures pour ñu waxtaan ci liste bi liste bi am na lu ma bind mais waxtaan ak ñoom comme nan def ñu waxtaan ñoom seen xalaat def liste bi 11 heures ma jox ko Maguette de l'UTL ma woo Maguette le soir ne ko demain j'ai rendez-vous à 10 heures à 11 on se voit je vous communique la liste ñu commencé liggéey comme ça au moins qu'on dans l'action parce que man loolu laa xam terrain bi laa xam non waa d'accord mais pendant ce temps-là pendant ce temps-là li may wax moom président contacté na beneen entraîneur ba ci guddi gi dina envoyé na ma mail mais man maa ngi doon boo paree ci loolu waxtaan ba ay kii sama sama jour yi bu pare boo waxtaan màgget ne ko demain à demain mu tëdd nelaw lire ma mail kii te na du ci du ci wax du amul explication moom mooy patron basket bi lu ko neex lay def mu ngi seen bopp man di bëgguma sax quand je quand je l'ai li je l'ai lu deux fois ou trois fois je connaissais pas le sens du truc ah a koy lire seen bopp ce qui s'est passé réellement, et je le dis avec beaucoup de... Je, colère, avec beaucoup de beaucoup d'apaisement. Parce que, encore une fois, yàlla mooy dogal li ma gënoon métti si contrat bi wax naa leen ko mooy mooy mooy bii clause bii taxaw bi saaga sama sama état yàlla tere maa bëgg Sénégal te maa leen bëgg yéen am naa ci droit de bëgg leen sopp leen am naa ci droit de bëgg sama réew am naa ci droit de c'est une de foi dama gëm sama réew moo tax ma ne ko juddul ma lii du ma ko signé lii mënu ma ko signé noonu la def jël contact ak euh, Tafa Gueye pour euh, ci guddi gi et lendemain ñu def seen liste et le surlendemain il recharge la liste yi noonu la demee loolu moo taxoon na ah il faut ma def conférence parce que mën naa toog sama toog jàpp sama njàmbur du ma wax mais su ma waxulee dafay mel ni man maa bañoon liggéey parce que gis naa ci journal bi mais bon yooyu yëpp duma ci waxtaan di la déchirer le contrat yu bëri yu liggéey naa moom moo d'accordu la négociation yi aboutir yu bu la laajee lan moo aboutirul doo ko wax on c'est le flou complet kenn xamul lu kenn xamul lu lu lu lu ñuy dig ah mais non il faut il faut absolument que les gens sachent ce qui se passe loolu tax moom moom la damay def conférence édifier yëpp Sénégalais yëpp xam ba pare ma ñaanal Sénégal yal na yàlla dimbali coupe du monde ba ñuy dem yal nañu si yàlla may ay ndam li ma yéene woon Sénégal yal na ko yàlla mottali parce que ndam su amee ndamu Sénégal lay nekk ndam lay nekk ñëpp. Tafa Gueye bi accepté euh, exercice fonction bi yàlla na ko yàlla dimbali joueurs yi qui m'ont interpellé et les joueurs peuvent le dire et j'ai des j'ai des j'ai des j'ai des preuves les joueurs peuvent le dire qui m'ont vu à la salle l'autre jour samay assistant mu ne leen ko wax continuer le métier balaa mon discours continuer le métier nit ku nekk a wërsëgam la man fi laa yemal ak ñoom laa yem ak yéen mais vous vous devez continuer le métier Babacar Touré il ma interpellé fii sama assistant mën wax ak keneen ak keneen am na ñoo bi la sax ne ma xamoon ndax mu mu mu ñëw au delà des émotions qu'est-ce que lu ma leen wax eh Sénégal ngeen di liggéeyal liggéeyal leen Abdou Ndiaye liggéeyal leen Abdou Ndiaye de Sénégal ngeen di liggéeyal da ngeen jog ngeen dem jouer ji loolu mooy sama discours loolu laay ñaan parce que yàlla dimbaluñu ah man vraiment loolu laa leen amal lu ma leen di wax parce que l'intérêt supérieur du Sénégal prévaut sur chacun d'entre nous